Arsenal soos na ñànktanmu Nottingham Forest gi nga xam ne léegi nii la ko def moom gone Arsenal yi football nan match bu mucc ay xibaar yi gën naa yaatu Sadio Mané ñancoo national bokk na ci équipe bi nga xam ne mooy football boobee final moo Koulibaly ñoom ñaar ñëpp kenn comme ci man di doon da nga am taxawaay boo xam ne boo am solo la premier ballon boo xam ne laal na ko fële ca Allemagne léegi la ko Harry Kane def gars yi topp leen nu yow mi ngi door a ñëw laalal abonnement yi bu ko defee a avancer ci information yi sant leen bu baax a baax ñu door a xibaar yi Arabie Saoudi bi nga xam ne moo nekk al Nasser ak Al Hilal bi xam ne kii di Koulibaly moom lay football match boobee ca kanam tuuti bu ñetti waxtu jotee maanaam trois heures lien bi di ngeen ko mën am ci li nga xam ne mooy groupe whatsapp ba ngeen mën seetaan match ba ci kanam tuuti match boobee compo officiel yi daanu na ñancew na centre ci côté càmmoñ Ronaldo ne ci digg bi baraj moom ne ca ba nga xam ne mooy bol bu Al Nassr pour contrer kii di ñancew international ko man am ab sénégalais dana jël coupe arabe bu ma fois Euh, ci histoire bi nga xam ne mooy histoire Sénégal nappaaje na équipe bi nga xam ne mooy Nottingham euh, Forest gone Arsenal waaye nag tuuti nag match boobee bi mu jeex métti ci ñoom lool ndax daanaka la gone Arsenal yi euh, dugal bit boo xam ne bu am solo la ñaareelu wala boog fanweeri minute ak ñaar ñu tollantiwaat ki ko dugal moo nekk Bukayo Saka mi nga xam ne yaakaar naa ni moo ko dugal tey loolay digg dëgg fanweeri minute ak ñaar Arsenal boo amul sens dana laal première place bi comme na yeneen match yi ñu ngi daw wala ñu ngi gëstu yeneen information yi nga xam ni euh, mooy am ci yeneen match yooy nga xam ni euh, bëgg nañ euh, dara bañ leen rëcc ci li nga xam ni mooy programme boobee lépp ngeen mën koo xam Bayern Munich laal na première balam moom mii di Harry Kane yeneen match yi daw nag daanaka mi ngi daw match bu mu ci mën di doon fukki minute ak ñaar singam loolu la jot a daw a gudd bu ci mel ni équipe bii di Newcastle Aston Villa Sheffield United Crystal Palace Everton ak Fulham ak Brighton Albion ak li nga xam ne mooy Luton Luton Town nga xam ne loolee anglais la neexutal liir ndax ñun ay xongu nopp rek lan xam Bournemouth ak West a loolee tamit ci kanam tuuti jërë ngeen jëf Mbappé mi ngi ci match bi nga xam ne moom la Paris Saint